سرنج بلانجي وقت سمعنج لي زيار كل زيار جانو سكرم جي خمني نجانو ناكل مسيري بو بكر كل نيو خمني نجوخ دلو خشخ سيد الحاشي مالك كل نيو خمني نجوخ دلو خشخ عمر بفوتيو كل نيو خمني نجوخ دلو خ الفاهم ميرو كل نيو خمني نجوخ دلو خ رسول الله سردي نتو اوان ملون بصر السيبات فال فيرو تبرزق سرد علي القي فيرو تبرزق صباي لي لي غير شخص دا am benn waay bu waaxu waaxu dem waaxu dellu ci ñu ni ki kara mu ni Seydou Mouhamadou Mansour mu ni dara du fay sa baye la ko waxon nak sa baye la xol nga jàng dem dellu ci sa baye ni la Mansour nga ni ko si mu la ñaar moy dal doomu soxna nga ni ko lan la mu la doomu soxna kët mu bam rafet ta amul xam-xam du ko tek fenn way si maali jalu la fii la taxaw ah ku yaakaar ne lii neen la da ngay caaxaan si malik yaakaaru ñun ñu baax ñëpp mu ngi ci yow Babacar Si nag jur la Cheikh sidal Alhaji malik di sa maam Alhaji Mansour sa turandoo di sa goro taxul nit ñi di kër kër yi li tax nit ñi di kër kër yi mooy kenn gisul ci yow lu dul yàlla ak rasulullah ak fab sa tànk tëkk fukk Babacar si tëgg si Malick wax ji sax du gudd waaye sa maam Cheikh Seydi El Hadji Malick sama baay ne daf ko ni ku doon yëngu mun ko alaaji rawaan mun ko ku doon yëngu mun ko biraa gay nayoo ba mun ko ku doon yëngu mun ko alhaaji amit ne sa ni ko sa dëgg-dëgg cheikh sadi alhaaji malik sa gaa yaa waaye yow itam la ilaha illa hu mën nga tàllal sa loxo ni kenn gënu may muqaddam kenn gënu may taalibi ca sëñ bi ku sa jàq it yow nit nee na fii ci avion spécial <laughs> jërëjëf <laughs> lii baax na ci <laughs> Danto Mansour nit dee na cëpp fii ci avion spécial avion bu moomal boppam téléphoné sama kër ni ma Mansour may ma ne ko naam mu ma yaa ngi sa kër ma mu ne ma yow loolu soxla à à l'aéroport ma ne ah ñii fu nu ma xamee sëriñ bi ma dawal sama oto ñëw aéroport fekk mu nekk ci salon d'honneur ma nuyu ko mu ne ma yaay Mansour Mbaye mi nuy dégg ma ne ko waaw mu ne ma fu sëñ Mansour si nekk man ko borom daara ji mu nga tiwaawa mu ne ma moom moom laa bëgg gis nuyu ma man ko nan dem mu génn jël oto dem ni la sëñ Mansour Mari dama jaaxal dama romb Nigéria romb Cameroun romb Gabon ca ma am tiis soxla su tiis lool ñu ne ma boo la gisee rek mu faju ay sëñ Mansour loolu kenn mënu ko faj de jafeñ na waa ji ni cëb wàcc ma fëgg la ñu la ñii kat xam ma ci kenn si nee nunu Nigéria loolu leen ni bu ngeen gisee Mansour Mbaye mën na leen yóbbu ca borom daara ja nga ni tekk sa tekk gi ni pot sa potiiral gi xool ma sa xool bii waajo ni la nangam ak nangam ak nangam ak nangam coo waajooju nu doon wax mu ëpp doole ala jili mbay moo ëpp doole ala ju juga kebe ñu ni ko waajooju nag mu ngi ci ay loxo ci kilifa gu mag moo nu la tegtal ngeen ma Mansour Mbay mën la si ngeen mën ci furma xame man la wallahi si maa ngi wax ci nga ne tëll buntu ba toog lu mat 20 minutes 30 minutes delu ci ni ma jox ko ki niko nan fexe ba mu lek ko bu ko lekke fër ko te du fa am mukk jott fa waaje la am poosam am lu rëy beug la ko jox jox la ko dañ ko dede téye ko ba mu génn ñu dem ca réew ma ca Nigéria ca ma jox xarit nga xam ne li may wax jox ko ko mu am fa ñetti fan te ñeenteel fa baroon mu coup d'état chef d'état ba ko jàppoon bàyyi ko mu ñëw fii ziara si la kii mooy Seydi Mansour gaa yi waajaa ngi de sa baay Alaaji Abdoulaye Sis ne دفلا زيارة سيب سكري جولي بنا بتكوري كم يوم زيارة لا نتودي نقول يكم يدم من ما دقت كنا ما أتبي ما دقت كنا ما أتبي من ما منصور بيا لا دالا من ما من كوا أحنا بابو من ما والله منصور سيبي كو جسر جسر سيري أبو بكر سي مالك يانا يالا كدر سفر سي مالك يانا لفي الله باي سي مالك لي بغي تي تاريخ ak li nga bëgg ci mbokk gi yal na ko yàlla def ñii nag juumunu honneur longue vie et santé de fer Mouhamadou Mansour amin longue vie et beaucoup de santé à El Hadj Abdoul Aziz xalifa général des Tidianes amin kon sima simalik yow la ñëpp yi déglu sa bàyyi rek ne ku yëkkati sa loxo ndeyjoor ni kaalew ma tax faalew ma kenn yëkkati sa loxo càmmoñ ñi kenn faalew ma nit ñee la bëgg waaye liñ la bëgg lépp simalik mu ngi ci yow كان خمول الدرة لدر يلا رسول الله شيخ تيجان شيخ تيجان لاجي مالك نتوت سمي يا سيدي ابو بكر نك شو تولي لول لا لا خامي لب لو خامي تي دك دك لدر دفر مرت وخم رافل دي دف لو باخ منصور بوكم ما موي بروم دار دي دم بك رك تاي nga may ma nek leuf ci talibé ku ci waxati borom daara ji fey ma ndax borom daara ji ma ko jikko wax ci gaay yépp ko wax فتبارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعرش وسكناته والكرسي ونمواته فتبارك الله داوما جاخله واي تي جاخلنا واي دوين ما جاخل وايتي man kat tey jii defe naa ni tey daal moom am na lu ma am na lu ma am na lu ma bëggoon a am daal am na lu sama ko amoon tey wallahi da ngeen xam ni kontaan naa gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen ñu ngi leen di ndokkeel ci xew-xew bu mag bi ngeen jóge man ndokkeel si nag kama tax a jóg ndax xew-xew bi kama ci wóolu woon muy abdul aziz fa tabaarakallahu la ma ca bëggoon yépp def na ko ci wàllu muhammad ci wàllu guddi gi ci wàllu yépp xew-xew bi ci des it moog alxaaji malik wax nañu ko wante nag ah man lam yushkuri nnaas lam yushkuri llah la in shakartum la azidannakum شكر الوسائط واجب مودي لان خاو خاو بو ري بي نين جوغي تي دافانا ني بودو وان بونام خاو وي كين دون خاو باي خاو داماني بودو وان بونام خاو وي كين دون خاو باي خاو كان لا كان لا محمد رسول الله لو لسامع وقت لو لم يلح في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في الظلماء يا الله ديك الوعي لو لم يلح في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في الظلماء يا الله برون خيوك محمد تدين دملك التفبيه واي واي واي برون خيوك ñëpp ci lëndam la ñuy dee kon borom xuyu googu ba ni xuyu ba tax nu am muy borom xew yi maa ngi leen di ndokkel ci xew wu rëy woowu muy xew muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam تفضل بلية wala bu du woon moom xewam kenn du ne xewu bay xew muy Muhammad guddeem gu réy googu ngeen jóge barki démb fa tabaarakallah kenn ku ci nekk la ko ca war mu def ko ca bu dee alal bu dee nag bu dee effet bu dee ñaq bu dee matériel bu dee lumu nga def ko ca terale nu ko guddi googu lañu ñëwoon doon leen sant si taxawaay yi te kat toujours ma wax ni rang bi nu yàlla rangale ngir muhammad lépp waaye def ci moom ëpp na ko waxuma di ko jar dama ni rang bi julit yi am ngir muhammad rang ba ku tax nga rang ca loo def ci moom ëpp na ko waxuma di ko jar mooy lan walillahi alizzatu ولرسوله وللمؤمنين والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين دقل والعزة تدنغا لله يلا يلا ولرسوله أجوانا تنبا والمؤمنين أك ويقمنا ترى رد مثال yàlla ني yonant nii way gëm ñi nii waaw ak tedd nga Muhammad ak tedd nga way gëm ni lan leen moo leen distingué العزة لله الولاية هنالك الولاية لله حق نغو غاك نغور غاك كتن غاك لب لله يلا يلا لولا تدنا يلا وعزة رسوله نك تد محمد الكفاية ما يدريك إنا كفيناك المستعزئين إنا نكن يلا كفيناك فجل لين لا كفيناك دوين لين لا كفيناك دفاعا لين لا مستعزئين ويجيني كوكو عزة محمد صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين ها ها دقل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وعزة المؤمنين الرفعة وأنتم يين ويجمني لا علونا يين كما يب إن كنتم نعم لكن يين مؤمن دي ويجم دما نسنغ بوبلي ما ñu am ci barkeem lu kenn amul ngeen def ci moom tiraanga ju rëy ji moo tax nu ñëw di leen sant ca loola ne lañ fi waroon wax yépp fa tabaarakallaahu ci nu doy lu du ko fi yabal si fa tabaarakallaahu musa si nun rëkk te du nu rëkk du yokk du wàññi du تبخل فتبارك الله وخلنا نكلب وانت لك شونو ينجن صنو نجيب دي نكو تدي نخ محمد كم موم وينك فلن دفع دموغي آه من لك سيتي بي سيتي بي موم دانا جي سيتي سي وينك ma jëkk ma jëkk ci li tax cité bee cité li tax ñuy cité cité naa ci jëkke mooy muhammad am déet waay waxal xul axlaax baasu lanbiya li zuhuri muqaddimatu faalu mulk والأرواح تابعة للروح والأجسام تابعة لأجسامه هذا غاية الكرم damay waxtaan rek damay góob kese. ci doon gàmmu gàmmu la ba pare gàmmuwuma tagati kenn dama ni may ma foofu tuuti boo nee Mouhamad kay oho déglu rek Mouhamad luñ ko wax borom guddi gu tedd googu le muy Mouhamad Sidi Xaaji Malik wax ni waxal xul axlaaqi baasu lambiya li zuhurihi muqaddimatun faalam wala tanami في عالم الملك والأرواح التابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم كوكو ما تخجوك سنتونا تيموم لا دي نقلل وخني ينبني الحمد لله رب العالمين بندق gi yàlla ملي في yi ak yónni gi mu yónni yonent yi ci aalamul mulk ab la ngi ñëw te mooy muhammad wal arwaaxu ruu yëpp taabiatun way topp lañu li roox yi ñeel roowu muhammad wal ajsaam yaram yëpp taabiatun way topp lañu li jismi yi ñeel yaramu muhammad sama maam ni ci dëgg-dëgg daal haada lii gaayatul karami mooy dayoo tedd nga kooku ngeen doon teral moo ma tax a jóg muy muhammad te kat muhammad nee na maqtulita xubbi bi qalbi ahadin illa wa harama allahu jasadahu min annaar bépp xol boo xam ni ku ko xar sama cofeel na ca yaram wëmb xol ba araam na safara te koo soppul doo ko teral ko soppul doo ko màggal ko soppul doo rey ci moom aw nag koo soppul du la tax a jóg koo soppul doo tax a ñàkk dama ni insha allah muhammad nee na bépp xol boo xam ni ku ko xor ku ko xar sama cofeel na ca yaram wu ëmb xol ba yaram wu ëmb xol ba araam na safara kon jaageen jëfaat jaa ngeen jëfaat jaa ngeen jëfaat jaa ngeen jëfaat di sant nag ndax man xaw ma lu ma leen di fay ci àdduna teraanga yu toll nii ngeen jaarale ko ci man ngir ki tax ngeen ma ngeen di ma teral muy cheikh al xalif ak bàyyam xaaji malik ak sunu wayjur wii muy xaaji abdul aziz ak mbooleem ku bokk ci xadara bi mu mel na ni may leen lu tuuti waay waaw góor waaw waaw moo waral nga yuuxu noonu waaye ñu àggal tuuti rek kon fa tabaarakallahu coono yooyu le ak taxawaay yooyu le ak teraanga yooyu le bu bés bi di jubsee kenn dutu am sago kenn du dutu am jàmm fa tabaraka la sana xaaliqiin te yooyu le yëpp ngeen doxale nu suñ liggante du yooya duñ ca gis kenn duñ fa teew te dara du tardé dara du manqué loolu réy na ci nun torop moo tax tey jii dama bëggoon foofu sama jëmm rek man Mansour muy sama kàddoo ci yéen ba nga xam ne kontaan naa ndax wax dëgg yàlla Cheikh Al Khalifa daf wax ni maa la sopp maa la wóolu maa la bëgg maa la gëm waaye jaraloo ma dara Babacar mënu ko dégg nit ko sopp bëgg ko wóolu ko gëm ko mu jaral la dara te ku am dara te daraja jarul la dara doo am ca daraja dara mu mel ni kon fa tabaraka la seen xaaliqiin fa tabaraka la seen xaaliqiin Ablaay wax naa ne gàmmu ma damay joxe si njukkal rek te sama baay nee na mbaa doolo mënul paase luñ la defare nga yoore lex naan daa ko yeeyoo neen doom mbaa doolo la mu ne ma ak cant bu doon jomb ci diggante yàlla sant jaam amul yàlla moo war ñàkk amul yàlla moom jomb na nit ki amam warul ñàkk amam jombul ci jaayis lañ ko bind te wa jaayisan maa qabila al amrayni sim li darari wa nadari kulin qusim وجوب الضرر وجوب النظر جواز الضرر جواز النظر لاستحالة الضرر لاستحالة النظر أنا لم أكن ثم كنت فكل من لم يكن ثم كان فهو حادث وكل حادث فهو محدث أين محدثك تبارك وتعالى وي كلاما ورواي mu bind تمباخم دفك بيانانت تمباخم ko bi yonent wëlbatiku di ko gërëm naan ñaamal abdu inna awaabun ëskay sama jaam bee ka te mooy ayooba waaye ndegam yàlla mën a sant jaam ma sama jaam ak morom ma yéen waa cité bi ak yéen waa réew mi ak waa adduna bi ak yéen waa gox yi yépp yàlla ma yàlla wuut ci yéen fayal ma leen can desul لواي من دف نكو لواي خم وخ نكو ند دسول علل دسول مت دسول خرم دسول تانت دسول دارا دسول فتبارك الله اك ماغتي سيتي بيغا خم ني دانا دانا تا جيخ نيو تاك تي كو جي ملي بروم نيار فكي ات لا سيرن بي من دال أه. xam daa la yont yàlla daawud waxoon de yont yàlla daawud ya ilahi kayfa ashkuruka te wa shukri ni'matun laka mu ne ko laana shakatani ya daawud moo yàlla nan laa la war a sante ndax xam ne war naa laa sant ba ma sant la ak cant waraat na ci mu ne ko ah bi nga réeree ni manoo maa sant nag def naa réere gi mu dug cant waaye man dawee def lu ma yëkkati lu ma yëkkati rek ni naa leen ko sante la leen ronu ni ma moo ne mayit kat maa ngi taxaw te loola cant waraat ma ci ci yéen ca loola kon nag bàyyi naa leen ak ki tax ngeen may teral ki tax ngeen may defal loola mu cheikh al xalifa seydi xaaji malik yàlla nañ ma wuutu ci yéen fayal ma leen sëriñ bi wax dëgg yàlla ni su fekkee ni yaa ko gënal sa bakkan te loolu mi ngi ci yéen ndax palaas bii ah, palaas place bii ah am na jamono yooyu day soxna yi sax dañoo wax ni yéen góor ñi toog leen lii nu bëgg daal na fi am wala mu defante ko mu saf sap ba lépp leew neer seddu guy kon bu ngeen wëlbatikoo nag teraanga ju tol nii ngeen laaf ma ca yéene ma tuyaaba ja nu dox seen digganteeg loola ci cheikh al khalifa xaaji malik xaaji abdul aziz ak lu nu jabote at mu ne ngeen gën di jàmbaar at ma ko juutu woon surtout ren xam ngeen jamono neexul xam ngeen yëfi jafe na wante gàmmu ren gii ni mu mel amul genn gàmmu gu ko mas a mel ci matériel ci ay jëfandikukaay ci xaalis ci ay nag ci mat ci sañse sax ay sañse sax yépp fa tabarakallah kon yalla yàlla fay leen gën ji pay mbooleem ku ci yëngatu wala nga ñàkk ci wala nga yéen a ñàkk sax yàlla yàlla defar sa affaire adduna ak alaxira fa tabaarakallah bi may ñëw dama wax ne man dama jaaxle ndax man ñaare ma war tey ndokkeel leen ci guddi gu màgg gii muy guddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak li ngeen ci jëf ci sunu tur méngeleenu ko te jaru na ko ak li ngeen ci daj ci biir ak ci biti ma doon xalaat loole na ma cay def ngeen bettati ma ngeen bettati ma ci cofeel gi bindi leetar président bindi leetar premier ministre bindi leetar gouvernement bi wane nii dañoo bëggoon place bii ñu ngi ci ñaan digal tudde ko Mouhamadul Mansour man de yëguma tinuma ba lettre yi dikk ba accordé joxe ndigal Ousmane ñoom dikk ma bëcc kayit ànd ak sama imam bu tedd bi ak sunu kilifa gi fi nekk sunu bay Saliou Mbacké ak kilifa yi fi ne ànd noon ni ma kat dañ doon ñaan ndigal ba am na nu ndigal ci fii dañu la ko bëgg a tudde ma ne aa ah, su ngeen ma tàgguwoon lu jiitu nag man danaa xam na may tuddeeg na may def waaye def ba li ma bëcc nag ba la maa wéyal nag dem leen ca way jur wa alxaaji abdul aziz ngeen wax ko ko tàggu ko bu nee waaw waaw bu nee déet déet ngeen dem ca abdul aziz mi taxaw taxawaayu xadara bi yore sunu baat bu nee waaw waaw bu nee déet déet góor gi ni waxuma waaw waaye dama ba ku bokk ku bokk ci diina ji ku bokk ci diina ji ànd leen ba ca moom yëgal ko affaire bi ni ma nag su ma mënoon dara maay dem ndax cofeelam ci bëgg nu ak bëgg lu baax ak bëgg àdduna bépp bëgg yàlla bëgg ku bëgg yàlla bëgg ku bëgg yàlla kooka ka bëgg yàlla ka ko bëgg sax ala la si bëgg na la ñu ne ko daal si wéruloo mu ne kon nag abdul aziz ak alxaaji malik dañ ma taxaw sama taxawaay ñëwal ma ma ne ko doy na yow boo fa bon suuf sax sànni fa ñëw nga fa tabarakallahu ndax kenn mas naa gis ne cib cité ak nang fa nekkandool tanewoo leen sax seen tafe tax ñu wëlbatiku ne li tudd cité لول ما سلام فين نواي مو تخ دماني بول بغتي دك با دك فا نلا دك با بغ نغ دك فا مان كار سيتي بي لي واخ دغ يالا كان مان توما جام كان مان توما جام كات ني ليغا ديف تيتين تا يكو تاف تروا ديفا ديف دامو اد مو نك ديفا ديف لي ديفا ديف لا تونتو نين ما خليفه سيتي ما تورما سيتي الحاج مالك تورما سيتا حاج عبد العزيز ترما سيتا الشيخ سيد محمد المصطفى ترما سيتا الشيخ احمد تجاني ترما سيتا عبد العزيز ترما سيتا حضربي يب سيتا تشين يب كوسان سي كوري ماغا نداو نيب اك حضربي اك جلوت يالا yàlla ma yàlla fayal ma suñu xol seddi na guy man sax yàlla xam ko tariqa bi dama ne woon sax duma ñëw sax ci ndokkel bi ndax yëf yi ak téefalo yoy ak mbir mi ni mu jégé ak ni mu ñewant waye nak ah cofeel gaa ñi am solo de cofeel am na solo lool cofeel rek am solo te almaru ma aman ahabba محمد نانا na عندنا كم صب الله يوم الخيام يحشر المرء على دين خليله محمد نانا نكون أجرنا لنا يوم الخيام جزء دين خارج تمن بعند ما ده صب قال فعند صب قال أجي مالك نيوان لا جرنا نيو صب تنا أنا تلو خمني شفرك كمان ماي خما محبة دفع جراو الميم مشتق من الممات والحاء مشتق من الحياة والباء مشتق من البلاء والهاء مشتق من الهناء مسك دي بحبة موتخ كو صب صب نلا كو بان بورم بخير بن مالا بين بولا جنا بان محمد كو واخ دما توغا بين الصحابه ni ma dendee ak ministère bi am beneen saxaaba ñëw di nuyu si Muhammad naka ñoom ñaar dafa am lu ñu jotee ba bëtam ne toq ca moroom ma mu ni ci xolam man de na may def ba nuyu yonante bi te nuyu ma diw dana ma jaaxal te nuyu diw de tiis sama lool moom it fi mu toog ci weccu Muhammad mu ni kee di bu yegsee talal ma loxo la may def ba tàllu ma ko loxo dana ma jaaxal te tàll ko loxo tiis na ma lool Muhammad ni tekk rek waa ji xuus di xuus ba ne Mouhamad saa loxo Mouhamad ni diw joxal loxo diw diw baal ko diw na la baal dégg naa xol yi foofee la waxe ni xamdan li man jaala alquluba تتراءى ولو كانت الأجسام تتناءى وجعل الظواهر والضمائر بين أحبة قصان الكرام يتأتى ما نسنت بور بيغا خم لمن محمد def la xol yi muy gisee donte yaram yi soree na moo tax koo bëgg rek bëgg na la waaye waaye cité bi ak yéen yi dul cité bi ak yéen ñi fi teew ñëw waaye maa leen bëgg waay waaye maa leen bëgg waay ni ngeen ma bëggee laa leen bëggee waay te aboubacar sadiq amar ibnu xataab ousmane afan ali ibnu abi talib dañ doon waxtaan ci seen biir ñu ne ma cofeel ak bokk lu gën a for ci yàlla waay abubakar ne ah laay bër ci démb ji day wattaqu llah alladi tasaaluna bihi wal arhama ak bokk rek tax yàlla wax wax ba mu wattandikuloo boppam ak bokk la ci teg umar ni waaw waaw ul arhami kay awla baadin baadin mais tax mu wax ko moom yàlla mais na tax mu wax loolu usmaan ni waaw waaw ak bokk kay ba mu nee ca kaw yàlla ko ne wàccal mu bañ mu ne ko lu tax mu ne suma wàccee suma wàccee dañ may dog mu ne ko wàccal ku la dog ma dog ali ibn abi talib di tekk rek ñu ne ko doo bokk ci wax jee mu ne aha tey waaye dama bëgg ñu dem ba ca sang ba nag man foofa laay laayee ñëw ba ci muhammad abubakar nekk nu ñu ne noo waxtaane ci fele ku bokk bëgg nga attenu mu ne ko aha أو بك تدلايا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الأرحام من صدقت يا أبا بكر ومن هو الأرحام ولا بعض ببعض مدقل اسمع إلى حديث قدسي مدقل ñu ne Aliou nag moom nee woon nag bala moo wax dara day ñëw ba ci yow mu ne waaw waaw maa ko wax waaw sang bu tedd bi ñun ñuy waxtaane cofeel ak ak bokk ku tax yàlla bindunu ku tax yàlla bindunu mu ne ko man mu ne it ginne mu ne man mu ne ala sa kursi mu ne min noori mi laxoo xalam mu ne min noori malaakatu kulu ruhani yona yoona mu ne min noori mu ne ko yàgg yàlla ci man maam ngeen day ci bokk mu ne ko qul wallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد لا شبيه له لا نظير له لا ولد له لا والد له يلا امول داي امول باي امول مك امول رك امول جبر امول دوم mu ne ko lii la yàlla defal cofee la bu doonu bokk du defal dara def ngeen yii yii ak coono yii ak jamono yii ak xate-xate yii bu doon cofe dana mel nii lu nag amunu solo waaye daal ki tax ngeen sopp lu de am na solo waaw mawaddatu ak mahabba la leen tàqale lan la mahabba bu xasee ñëw ci yow dafay dugg ci say sidit dugg ci sa yaram dugg ci sa deret loolaa loola yëgu ma wadda sax man daa man nga bëgg nit ba benn benn jëmmi jamono mu def lu la na xare nga ngir ci mbëggeel ga waaye ma xabu bu xasee am lu mu def na neex da la ndax al miimu mushtaqun min al mamati wal xaawu mushtaqun min al balaayi wal xaawu mushtaqun min al hanaayi ah oh miimu ba xabba ñu ko xare ci mamaatuy dee xaaga ñu xare ko ci xayaatuy dund baaga ñu xare ko ci balaayu musiba haaga ñu xaree ko ci xanaayu mbég ci nga sopp ci maanaa dundam mooy sa dund deem mooy sa dee musibaam mooy sa musiba mbégam mooy sa mbég léppam mooy sa lépp kooku loo ko mënti def ak lu ngeen mënti debee da lay bëgg rek mawadda nag bu neexee mu bëgg la boo ko sa alal wala sa yeneen mu jékki-jékki dem yoonam ne feneen لولا انت قلق ما حب دو فجوك واي ما ود دنا فجوك ما حب ما تشفال دي خريط ما ود موي كوت ديو سما كوت كوت دنا توخو واي تشفال دو توخو الو لو تك ما دما كون فتبارك الله سنا خالقين سنو قل سدنا دي سنت لك كليفه يلي نخكر دفناني lii sunu xarit bi wax di sunu ministre di sunu xaritu démb ma jëng xarit jëng ci yóbbante président ak premier ministre ak euh, ministre l' intérieur ak waa gouvernement bi yëpp fa tabarakallahu damam gi lépp lu ci war ci teraanga ak i jëfandiku ak jëfin ak ministre de la communication yëpp taxaw lañ ci def ca ca war nga jotal la lu sunu cant nu nit nag ndax itam njaboot gi rendale ma compte ci lépp fa tabarakallah mboolem lañ waxoon ne nañ ko taxaw ku ñu waxoon taxaw nga sax ba taxaw lu ëpp lañ la waxoon waaye seen teewaay bii rek fa tabarakallah ak seen ñàkk jot gi wane na suñ diggante kon fa tabarakallahu yal na yàlla yokk garaat yi yokk sutura yi nag may jàmm réew mi ñëpp am jàmm ñëpp juboo may nu nawetu albarka matala ñëpp ànd ak fekk ak tal ak jariñoo man daal wolof nee na ku sa tuñu kaw dagg xaw ma luñ ca waxoon ëpp law ngay mën a wax waaye ab ndongo as ndongo akus nderam boo ko dee fonk bay organiser lu toll ci yonent bi di ko ko méngale ñuy denn waay dafa sa jëm ak sa njaboot yépp fa barab ba nga ne ak moom tudde ko ko dëgg dëgg man xamatuma lu ma leen di wax xamatuma lu ma leen di def ca dëgg dëgg man daal daal man daal daal man daal dëgg dëgg dëgg maanoog daal maanoog man nag ngeen ñaan yàlla ma sas yu rëy yii ngeen te sama kaw ma man koo béy ak jàmm sas ngeen ma de te sas yu rëy na te nag wax dëgg yàlla euh, ku ñu defal lu baax war ngaa xam lañ la defal te sant ña la ko defal ndax kañu defalul lu baax ak safaan ba man daal sant naa kontaan naa bég naa euh, waxuma sax sama jëmm waaye njaboot gi ma fi yabal muy Abdul Aziz jox ko gàmm gële mu di ko gàmm muy ànd ak rakkam soo si ak kilifa yi ni ngeen leen di def ak rek doy ma teraanga yàlla xam na ko tariqa bi ndax fa muy yegg sax ci man ci mbaaxam di ko wax ci nun àggunu fa sax waaye mbaa xam tax na lu ne lay wax di leen ndokkeel ci bésu démb bi nag di ci kontaan lool di kontaan ci ñi ñëwoon représenté gouvernement bi muy ministère bi Souty ture di Kabiru Mbooj di Mamadou Diop jaar na moo ñëwoon fi di ñoom Demba Seck ak ñoom Abdou Ndoye ak préfet waa conseil municipal yoo ak mbooleem ñi séq cité bi yëpp ak mboolem kilifa yi ñëwoon ci onogaris ci turweeg yëpp ak ngénte la ak tudd doom ja ak ya ca xaw ak na mu ca xewee xew-xew ya yi leen di ndokkee di leen sant te dama wax ni daal dafa waroon nekk ñaari bés bésu ndokkeelu gàmm gi ak bésu ndokkeelu tur wi ñu fa ànd ñoom ñépp nag كون محمد دو محمد محمد كوكو موم لما سميت ابنك محمد ليس من اسماء ابائك ولا من اسماء اجدادك فقال يكون محمد محمود بين عدي وسمائي كون محمد من دون باقل صلى الله عليه وسلم محمد من ما تدي نتلك محمد مومو مومو محمد نتدي سيتي محمد am déet waay Mouhamadul Mansour kuñ ko tudde Mouhamadou Rasulullah kon cité bile ak cité yëpp yal na ci yàlla dolli barke yal na ci yàlla dolli jàmm yal na ci yàlla dolli def jàmm yal na ci yàlla def bayre yal na ci yàlla def wërsëg yal na ci yàlla def mujj bu rafet yal na ci yàlla def nag mujj ci li ñu seenu yëpp. mujj rek am solo yal nañ ko yàlla defal ci jamono jeeg cité beeg gàmmu geeg yépp gis nga sama maam ñaanu yàlla wërsëg ñaanu yàlla bayre ñaanu yàlla xam-xam ñaanu yàlla alal ñaanu yàlla taalube lan la ñaan yàlla mujj gu rafet mujj gu rafet de moom la sama maam ñaan nee wa bi saaxibil خاتم خاتم الأنبياء فمن علينا ربي لن حسن الختام